ku bokki jullit yi nuyu di ci Banjul ci ji fas ene guñ Faraba West Coast Region ci ñu ci programme bi وقالوا شيطانا فهو له قرين وإن like, mm. ജനാദന ഞാൻ النار والموت متاتا لا تركونه وانت الذي أبا سندنبرو سندنبرو من تمابو